rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin sayidina wa moolana muhammadin wa ala wa sahbihi ajmain mbokk yi ñi ngi leen di nuyu ak fu ngeen mën a ne eh, di ñaan sunu waxtaan wi fekk leen ci jàmm bàyyi leen ak jàmm ñu ngi ñaanal cheikh Mouhamadinil Mountakha ibnu cheikh Mouhamadinil Bassir mu yàgg fi loolu te gën a wér ak njabootu Serigne tubaa gépp ñi ngi nuyu tamit al umma al islamiya muy nation islamique bépp ñu ngi leen di nuyu di nuyu xalif généraux yi bàyyiwuñu kenn ak fu ñu mën a nekk tey ñi ngi fii ci 24actu point com ngir bëgg a waxtaan ak yéen tuuti ci waxtaan woo xam ne dafa jëm ci sëriñ bi sëriñ bi nag bu nu ko waxee mooy Cheikh Ahmadou Bamba nafaana allahu bi barakaatihi comme ni ko suñu alaaju Mbàkke di wax waxee rek xaadallaahu lahu maxtaara lahu wax ju riise ngi noonu ndax sëriñ Tuubaa buy wax day wax li yàlla tànnal sëñ tubaa li ma yàlla tànnal rekk lay wax te kenn munta xam nag li ko yàlla tànnal moo tax bu fekkee danga koy ñaanal danga nga naan yàlla na ko yàlla wommatal li nga ko tànnal moo gën nag wax yu bari yoo xam ne danaa dégg nit ñi di ko wax fi nga xam ne nag fi lay tàmbalee te di ko ñaan yàlla defal ma ko ci waxtaan wi mooy sëriñ Saliou dafa wax ni fekk ñu nartoon a xam sëriñ tubaa nga fexe bañ xam sëriñ tubaa nee na ci liggéeyal Serigne Touba la bokk ndeke ñàkk a xam sëriñ Touba doy na war doy waar gu toll ni ndeke xamal nit ba fexe ba xam Serigne Touba sa biiri kàddu liggéey bu ko gën a rëy féetewul kaw euh, Serigne Touba ku ne xam na ni mu ngi soqikoo ci ñaari waajur min abaway ni may nii sëriñ Mamour Anta Sali ak soxna jaaratullah yal na leen yàlla dolli leer ak yërmande te bu ma ko waxee mooy ñaan daa munta ñàkk waaye ku takk sëriñ Tuubaa sa lépp leer na soxna jaaratullah nag dinaa ci wax tuuti am na ñu bari ñoo xam ne jaariyatullah la ñu wax jaar jaariyatullaa nag buñ ko mënoon firi mooy kuy daw yàlla tekkiwul loolu jaaratullaahi mooy dëkkaaleb yàlla bu dee góor jaarullaahi la wax bu dee ku soxna ñu dolli ci taa wane ne jigéen la ñuy tàqale ak góor muy jaaratullaahi Mariama Bousso Sëriñ Tuubaa feeñ ci ñoom ñaar ci kàttanu sunu borom subhanahu wa la ndax danoo wax ne sëriñ Touba dafa wax ni dama xool àdduna yor sama làmp di niit ba gis soxna si mu doy ma ma jaar ci moom ñu wax ne nettali dikk na ni soxna si sëriñ bi mas na koo wax ne ko mosoo di dem aw xew sareet ba nga dugg yàlla dogal yére ya dagg mu mel ni daal fas wa daara pelu nga wàcc julli gee soxna si daal di xool tuuti na ko wàllu loolu mas na am mu ne ko boobee dama lay xool di la topp di la topp ba wenn waxtu dese la bi la wenn waxtu wi desee ma gis ni bu saret bi deful noonu danga ko faat te boo ko faatee ngir ma jaar ceew dina jafe sëriñ bi te boobu neen na mën a maa jaar ci man maa doxale noonee soxna si it ku ne xam na ne li fi am ak bi yàggul ndax soxna si fanweeri at la fi am te ku ne xam na ni sëriñ bi bi muy jaayanteeg sunu borom subhanahu wa taala sunu boroom dana ko yan bii ma la yen am nga ñaari waajur yoo xam ni su fekkente ne yàlla dogal na ma bàyyi yen bii yen la ko ñoom ñu ne fi danañ ma ñaan te buñ ma ñaanee danaa ko tegi sëriñ bi ne ko yàlla lu ciy pexe mu ne ko ah buñ fi nekkee daal loolu mooy am suñu boroom ne ko kon nag dama bëgg nga jiitalal ma leen sëriñ Tuubaa ne suñu boroom kon dama bëgg nga jiitalal ma leen ci lay ci la ko jiitalee wax nañ ni sëñ Bousso bi mu làqoo sëriñ tubaa Jolof la jóge ñëw jaale si ko fii ci Mbàkke Bawal bi nga xamee ne ñëw na ci Mbàkke Bawal jaale si ko sëñ Mor May laa déggee ci làmmiñam ci biir armée li Bousso bii muy wane armée li Bousso bii ni yàlla dogalee mu garanti muy wax ne magi sëriñ tubaa jaa ngi nii tudd tëdd muy borom borom saam sëñ Bousso bi mii dina jaay mi ngi nii tëdd te suñ busoo bi ku ne xam ne ko wax ne sëriñ Tuubaa bi yàlla dogalee mu ñëw jël loxoom teg ko ci pavillon bi la wax ne asamaan si tàmbali di sotti ay ndox rut rut ndox yi dëgër këng nee na sëriñ tubaa daal ni muuñ na ndaxam moos yërmande jim amoon ci man ci la ko yàlla yërëme nga xam ne kon ndeke sëñ busoo bi wàllu yu mag la jaamu ko yàlla bu mag la waaye ndeke mbir mi sëriñ Tuubaa la gis nga gis nga li sëriñ Tuubaa wax yërmande jim amoon ci man ci la ko yàlla yërëme ak xoola jaamu yàlla am nga xoola mbaaxam nga xoolal tedd nga am ja wax ñëw na ba ni sëñ Muso bi bu yàlla dogalaan mu masaan di jàngal xuraan bu masaan a jël euh, yeeslu ba toog war a jàngal xuraan day tàllal loxoom kaamil bi tege ci kon kooku wàllu yu mag la kon bu demee ba sëñ tubaa di wax ni yërmande ji mu amoon ci man ci la ko yàlla mi waaye fàttaliku ngeen ne soxna si bi mu ko jiitoo sëriñ Tuubaa am lan teeg tubaab bi te sëñ tubaab moo waxal boppam ni sama am lanteeg tubaab bi bu leen defee ne tubaab bee ma jàpp de man mii maa jàppoon tubaab bi ndax liggéey bi ma yàlla liggéeyal ñoom la ma booleel man leen kat ndax mënatuñoo ñàkk ta mënatuñoo tàggoo ndax li ma war a def ci jaam ñi xettali leen ci ñi rek laa mën a jaar ndox ñoo ma koy teg moo tax mu ne asiru maa labrari ina asiru wa sannal ida anni unaka asiru maa ngi dox ci waxtu bu may dox ànd ak noon yi noon yi jàpp ne booba ñoom presuñe la te fekk na man Serigne Touba maa ànd ak ñoom ngir liggéey liggéey li yàlla subhanahu wa taala loolu laa seq ak ñoom moo tax sunu boroom subhanahu wa wax ko ne ko Touba gi yow yaa ma ñaan ba Touba aaral nañ la ko aar goo xamante ne bii benn saay-saay du la fi mën a fekk ngir di la fi def dara ndax yaa ko ñaan ba may nañ la ko Sëriñ Tuubaa nag lu muy bëgg a ñaan sunu boroom wax na rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ko xanaa xamul ne teg naa ko ci loxoom bu ko defee rasulullahi sëriñ bi ne ko bàyyil ma ñaan ko ndax ay teggin gis nga Sëriñ Tuubaa nga xam ni ñaan gi da ngay dégg wàccaal sax waxtaan ka di naan day imposé yàlla nan ko defal loolu ëpp naa wax wajaal yàlla na nga def lay tekki xam nga li nga xam ne moo ci ndam rek mooy Serigne Touba lu muy bëgg ñaan fekk na yàlla teg ko ci loxoom ba noppi mu ñaan ko ngir ay teggin moo tax bam ne wa maskani sallim min al fujaari wamnun alal ahli bi ma in jaari sama dëkk bii di Touba na nga ko musal ci ay saay-saay te dëkk bii di Touba na nga maa ngi lay ñaan yow yàlla nga xéewalee ñi fi dëkk ndox muy daw ci kaw suuf si na leen ko may Touba yéen buñ ko seetloo Touba ni mu yaatoo ak mbedd yi ni mu yaatoo te jaado woon na bés bu set nga dégg fi loo xamante ni dañ naan oh waaye Serigne Touba ñaan na ko ba yàlla defal ko ko moo tax bi nga xamee ne rasulullah fekk na ko fii ak saxaaba yi sallallahu alayhi wa sallam ci ci daaru Xuddoos gii muy xalwatu mu xool saxaaba yi dañoo wax nañ kaalawoo ak seen fas yi nga xam ne ci lañ nekk jekkaay gi tax na sëriñ Touba. daal na daal ne yonent bi alayhi salaatu salaam man ci ñii laa bëgg a bokk bam ne yonent bi alayhi salaatu salaam ci ñii laa bëgg bokk mu ne ko bokk ci ñii faat na ñii dañoo tuuroon seen deret ca xare ya nga xam ne ñoo ñoo wéyoon kon bokk ci ñoom faat na Sëriñ tubaa daal ne ko man de ci ñoom rek laa bëgg a bokk mu ne ko am na yan boo xam ne kat des na fi te kuñ ko mas a yan te ndimbalu yàlla tàbbiwul ci yow fa ngay jaare ñàkk mucc sëriñ bi nii man day ñeme naa ko ndax tàllal naa sama loxo yàlla te dootuma ko tàllal keneen moo tax mu ne maddu yaddi tàllal gi ma tàllal sama loxo jëm ci yow yàlla baxdam tidaiha laka lil xalqi saa ani li kaw niha laka sëriñ tubaa nee na yow yàlla damaa tàllal sama loxo jëmee ko ci yaw ba noppi tàllal gu ma ko nar a tàllal mbindeef nag lu may naqari la ndax loxo bi yow rek yaa ko moom sëriñ tubaa bu ngeen seetloo ci mat la bu fas ni xarasaxallaahu la wax tuuba xarasaxallaahu wala xarasaxallaahu yàlla aaral na ma tuubaa kon fi arasa fii lu maadin la kon lu yàlla def la ba noppi loolu kat moo waral génnam gii dem jolof jolof gii nga xam ne sëñ Ibrahima Diop Masar yi nee na moo ma gënal Baxdaad moo ma gënal Faas ñu ne ko lu tax mu ne man naa gis jolof ndax Sëriñ Tubaa tax maa lii li Baxdaada sawxun laa wala faas yi laakin bi ruyaa jolof xat bixtu an faas yi xaysul xadiimu sawaa xaysul muriidu hawaa sirran yutahiruhu min kulli ajnaasi si Ibrahima Diop Masary nee na yemaliwu maag jolof fenn ndax jëmmi suñ tubaa dee tax kon de xam ngeen ne jolof gii li muy baax baax baax suñ tubaa jafa nekkoon rek a tax mu baax moo tax si Ibrahima Diop Masary wax loolu kon mbokk yi loolu rek lañ waxoon ni nañu ko tàmbalee ba beneen yoon allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim